asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci wenn waxtaan wu gàtt rekk jëm ci réew mi ñu bokk ak diine ji ñu bokk ak euh, valeur yi ñu bokk mu mel na loolu wolof yi di wax naan xolli gunóor àgg nañu nag euh, ci xolli gunóor te wolof nee na gunóor nag wenn der la ku ko xolli moom mooy nammatoo mu dund loolu nag su ma ko waxee mooy coow li nga xam ni dégg ngeen ko fan yii lépp luy syndicat nag g dam Dame moo ci jëkk a wax g nag ñoom dañoo bokk ci ñi nga xam ni ñoom ñoo fekke woon séminaire ba séminaire ba lan la UNESCO luy yoonam ci programme jàngum école lu ci yoonam ba moom sax muy invité ay nit ci séminaire pour won leen soumettre leen ay ay yëf programme kay ay enseignants ñoo ci war a réfléchir ay spécialistes yu bokk ci wàllu enseignement ñoo ci war a réfléchir waaye UNESCO moom li ñu xamoon ci moom mooy toppatoo mbiri tuut tànk ay xale li nga xam ne nag moom la dugal ci biir te nga xam ne UNESCO ne ci ginnaaw mënee su koo seetal ci indi ay jikko yu bon yu ñaaw yu salte yu tilim yoo xam ne day fanq suñu baaxu maam ya suñu yiw suñu njekk suñu sutura suñu teggin suñu xorma loolu mooy seen taxawaay ndax nag ku dem ba ni da ngay jàngal ay xale lu jëm ci wàllu sëy ay gune yoo xam ne yi cinq six sept huit ba douze ans nga leen di jàngal lu concerné sëy éducation sexuelle naroo jàmm naroo jàmm yéen taxaw ngeen fii di xeex mariage précoce mariage précoce kay ku koy xeex waruloo jàngal xale lu jëm ci wàllu sëy te xale bi majeuragul te bu majeuree du yéene ko koy jàngal ndax nag mbir mi toj bopp gi neex la ku nekk ak ñu nga koy tojee am na ci wàllu sëy loo xam ni jaru ko c'est tout à fait naturel doomu aadama da koy jàngal boppam da koy xamal boppam bu ca tollee parce que développement être humain moo bindoo noonu mook nàmpayam liir bi bu naan put booy teg baaraam ci gémmi gi waxuma weenu ndeyam cus bi de baaraam boo ko tegee ci gémmiñ gi mu màcc ko parce que naturellement dafa am besoin boo xam ne bii moom lay sentir ngeen jël programme boo xam ne bii gis naa ci sax benn bu ñuy bind euh, euh, nu mu wax c'est quoi faire l'amour boo ne woon sax c'est quoi un rapport sexuel nga ne c'est faire l'amour mais yéen fan ngeen jëm ak ñun fan ngeen jëm ak ñun lii nag ay wax dana ko faj dëgg la ndax coowandoo day baax cim réew ba ngeen xam ni nit ñi nelawuñu waaye duñu ko faja ay wax de bu leen ko yaakaar les gens vont se dresser le peuple sénégalais dans son unanimité va se dresser danañ taxaw ci seen kanam parce que lii duñu leen bàyyi geen koy doxal du dox UNESCO moomul Sénégal Sénégal c'est une république libre boo xam ni bii kenn du fi doxal lu bokkul ak valeurs yi nga xam ni moom la gëmoon te lii may wax boo demee ci christianisme wala catholicisme boo demee ci lislaam boo demee ci judaïsme valeur yii lañ fay sàmm lislaam bañ nañ ko ba xale kenn du ko kon du ko boole ci fi mukallaf li feek àggul ci âge taklif malheureusement lii ñuy bañ ci lii nga xam ne moom la ñuy def ci programme bi mais moo nekk ci télé yi bërki démb gis ngeen ko gis ngeen ko bërki démb ci benn théâtre góor ak jigéen yoo xam ne sëyuñu sax nag sëyuñu bu doon jëkkër ak jabar sax ñu xam sëyuñu ñu fóonante ba yàgg ñu tëdd ci kawlal bi di batar batari ci kawlal bi góor ak jigéen man jigéen jooju laa yërëm man moom mi nga xam ni séquence yooyu bàyyiwul xel ne ëllëg kenn xamul lu ëllëgam ëllëge say doom mën nañ fi màgg ñu tegal leen séquence yooyu yow yàq nga sa avenir yi doom te yëguloo ko loolu mi ngi ci télévision yi at yee ca ginnaaw booba sax commencé guma vidéo yi bind naa ci benn oustaz fii ci réew mii bu siiw xam ngeen ko ci plateau télévision bii ci Sénégal benn ci plateau yi Sen TV pour ne pas le pour mu taxaw nee na day jàngale loo xam ni lii man jàngale naa ko fanweeri at ak nangam ña ko war a jàngit nag ndax loolu mu kàlla fa koy jàng mooy lan maxibul fa yaakaar naa ne sama mbokki daara yi xam nañ ko ma junjal leen ko ni ma ko daan junjee mooy liy waral góor ak jigéen yuy dencante fan lañu mën a àggante ñoom ñaar ba sangu loolu nga dem jëli ñaari estati ñaari mannequin bu góor ak bu jigéen bu góor bi nga takk big ci ndigg li buum nga yeew ci ndigg li langal big ne moo yëfam mais loolu am na fii ci senegal gi ki ko def ku siiw la ci télévision la ko defee boo xam ne bii xale yépp dañ koy seetaan kon yii lii raam ci ñam ñag bi la jëm bii dafay bu mujj mais yi jiitu woon suñu kanam yi jiitu woon a ngi fii ba ñuy mayee góor ak jigéen ci plateau télévision yi lu ne ciy xew lu nekk kay xew ci plateau télévision yi chaîne bu nekk yaa ngi concurrence ak sa moroom ci maa la gën a bon maa la gën a saay-saay maa la gën a dëng maa la gën a wone lu ñaaw ak lu bon bërki démb gis ngeen xale bu jigéen bi fi interviewé nee na benn mbër xaw ma liiru jaan xaw ma col gu bon goo xam ne gii fa mu àgg ci yaramam génn ginnaaw bi dégg naa génn di jooy xanaa jooy waaye jooy yu jëkk yi jooyagoo jooy yu jëkk yi jooyagoo melokaan bu ñaaw col gu bon kon kooka bu dajee ki mu dajeel di ko laaj lim koy laaj ñuy def ngal ngal ngal xal-xal yoo xam ni yii dangay dem ba yàgg nga ne ñii sax téemaa tàyyi tudd leen parce que nag am na ñoo xam ne ñii ngeen baal ma baat bi xaj yi ci biir àll bi di def seen yu bon ñoo di def seen seen yëfi xaj ñoo ñoo ñoo xaw a tane yenn nit ñi xaj yi nekk ci àll bi waxtu ndoxaan nekk ci li ñu ne moo tane yenn doomu aadama yi te ci plateau télévision yi lañ koy def kon lii UNESCO doon fexe dafa topp ci tànku ñenn ñi rek dañuy taxaw nag incha allah xaw ma man danaa fekkeem du ma fekke waaye moom sama bakkan du fekke loolu moom bu ma ko fekkee incha allahu da ngeen ci dégg tëdd naa ca kaso ba wala rey nañ ma parce que lii man ak sénégalais yi nga xam ni ak jullit ñi nga xam ni ak catholique yi nga xam ni chrétiens yi nga xam ni am nañuy valeur du ñu nangu mukk ñu koy jàngal suñuy doom ci école ba jamais de la vie lii nag moom mbokk yi yaakaar naa ne warta doon wax yi benn nit benn benn jàpp naa ne nii ma taxawee wax ci keneen war na taxaw wax ci waaye war na noo ànd nag taxawandoo nag ba lii ñu xam ndax day guddi wala day bëccëg asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.